dëgg la alors assemblée nga dugal fa benn projet de loi pour vraiment criminaliser li nga xamante ni moo di l'homosexualité fan nga ci toll. waaw projet bi dugg na ñu ngi xaar assemblée nationale daf ko war a tontu parce que bala see tontu il faut que bureau bi to daje. Mhm. waxtaane ko parce que loi bi dafa nekk loi boo xamante ni demande sociale la. Mhm. man lu ma gëmul du ma ko def man dama gëm ni fi réew mi toll dañoo war a def criminalisation homosexualité lesbienne. ak li nga xamante ne acte contre nature yi nga xamante ne mooy li am. Mhm. loolu moo tax. Mhm. depuis deux mille vingt deux ma bokkoon ci xeex boobu noonu ba bokkoon ci ñi ko njëkkoon a dugal. mais dugal bu njëkk bi ñoom dañoo cité wutoon li nga xamante mooy acte contre nature. Mhm. moo tax ñu ne loi bi am na fi ba pare. man nag bi nga xam ne dama ko dugalaat dama def modification. pour wax ni. loi numéro 65 60 le 21 juillet 1965 bi nga xamante mooy wax ci. acte contre nature boobu moom laa bëgg ñu defee ko. Mhm. article bi nga xamante ci code pénal mooy article 319 alinéa 3. Mhm. loolu laa bëgg ñu def ko. Mhm. ba ma ko defee tamit wax ni li ma ko bëgg ñu def ko mooy dama bëgg à partir de maintenant képp koo jàpp na ci acte contre nature nga xamante nii ci loi bu njëkk bi da wax ni diggante 300 la ak 5 ans. amende bi diggante 500 000 5 millions. ma ne léegi am nan ko yokk peine bi di la def ko 10 ans ba 15 ans amende bi ñu jëlee ko un million ba cinq million lii mooy loi bi ma dugal. Mhm. pour que mu ñëw nekk loo xam dañ ko war a jëmmal mu war a sax ci pencu ndaw réew mi. Mhm. sax si réew mi ñu mën ko doxal parce que nag bala nga naan naam danga koy nekk. dëgg la te xodd ko bala ngay lakk la réew mi fi ñu toll. Mhm. ndaw ñi ku leen teew wutal ay loi ba leen a protéger nasaraan yi nga xam dañoo am alal mën nañoo ñëw yàq suñu jikko yi ndax fi ñu toll nii boo xoolee ci nguur gu bees gi. recevoir nañ fi ñaari nit yoo xam ñoom ñëpp dañ leen tuumaal ci ngóor jigéen léegi nag ñaari nit yooyu ñu tuumaal ci ngóor jigéen mhm. tey ñu jógee bitim réew ñëw ci Sénégal suñu police autorité yi recevoir leen kii président de la République recevoir ko kii premier ministre recevoir ko mhm. mais askan wi nga xam ñoo fi nekk mhm. nekk ay kilifa diine nekk ay homme politique nekk ay homme d'affaires ba tey mënuñoo am Diomaye Faye recevoir leen wala Ousmane Sonko léegi xale yi bu ñu gisee ni ñu nekk dañuy jàpp ni ku yëngul ci affaire góor jigéen autorité du la jox li nga xamante ne mooy fulla ak fayda mm-hmm, mm-hmm. moo tax te kenn ki nga xam ne mooy Moulin Sow nga xam moom a gën a maanaam marqué si kaddu yi mu yëkkati mm-hmm. ci université Cheikh Anta Diop wax ni moom mooy député bi njëkk a déposé ngir ñu daganal ngor jigéen ci pencu ndawu réew bu France man en tant que député nekk doomu daara ma ni man dinaa nekk député bi njëkk déposé ngir ñu criminaliser homosexualité fii ci pencu ndaw réew mi ci li nga xamante ni mooy nguuru jomaay sonko loolu man maa ko def te ba histoire di fay loolu du fi dañ fi jóge te incha allah loi bi dana jàll assemblée lii maa la ko am nga ci yaakaar day jàll. alors euh, ba tey dama la bëggoon relancer par rapport à ça Jean-Luc Mélenchon ñëw fi mu jox polémique bu rëy a rëy ci kàddu yu mu yëkkati waaye ci kàddu yi nga xamante ne euh, premier ministre yëkkati na ko. waaw kàddu yu Ousmane Sonko yëkkati du kàddu yu mu waroon yëkkati parce que ñun bi ñu ànd man ak moom dañoo waxoon ne bu ñu gañee dañu criminaliser góor jigéen. Mm-hmm, mm-hmm. kon kàddu yooyu noonu la waroon a maanaam matérialiser confirmer ko si Euh, dañ ko toléré. toléré loolu du ko waxi Ousmane Sonko jëm war a wax askan bi. parce que kenn toléré wu ko fi. d' accord waaw loolu moom kenn toléré ko fi. waaye xam nga loolu. xam nga ni kenn toléré ko. xam naa ko kay voilà <laughs> à l' parce que ñi nga xamante ne ñoo ko doon jéem a def. benn ah. dee bi leen suulee kaw la sax dañ leen a sulle. Ah. te kon ko xam maanaam ñun dund sul tuba jeunes yi ci boppam dañoo yeewu ci loolu. ku ci jàpp moom dañ leen la yóbbu àllaaxira. kon nag ñu ko criminaliser si benn yoon kon nag am nañu yaakaar projet bi nga xamante ni dugal nga ko biir assemblée mu daal di jàll. kenn mënu ko tee jàll. Hmm. maa la ko wax. su ko majorité bi voté wul xam nga ñu ban majorité ban majorité. c'est la majorité qui l'emporte à l'assemblée kan waa benn boo ko yaakaar ñu ko resté woon ñoom neen bëgg nañu dugal ko ñii neen bëgg nañu dugal ko man dugal naa ko ku bëgg ku fanaan ak ku bëgg wetli te ñu buntu leen boole. loolu am na en tout cas askan yëpp nan xam ni. Hmm. bu ñu ko resté. ñaar ñi ñoo ko rejeté. mooy ñu nekk si maanaam majorité wala ñu nekk si opposition bi mooy nguur gu bees gi. Mm-hmm. alors bàyyi laa war a def naa ko. la nga waroon def def nga ko alors à l'approche de la présidentielle 2024 ñu gis la nga jël say responsabilités honorable euh, dem jàppale ki nga xamante ne moo di la candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar di Amadou Ba lan moom motivé woon sa choix yooyu sachant que ba tey man dama lay dégg ngay wax ne Ousmane Sonko sama xarit la Sonko jiital Diomaye. jàppale woo Sonko nga choisir ànd ak Amadou Ba lan moo waraloon loolu. avant Amadou Ba foo ma daa gis si kanamu Sonko si wetu Sonko. Mm. ba muy métti Sonko nga ma xamee. Mm. li ma liggéeyal Sonko dama ko defal Amadou Ba. Mm. di Sonko tax ñu tëj ma kaso. Sonko nekkul candidat wax naa ko ko si kaso bi boo nekkoon candidat man du ma nekk candidat yow laay jàppale xam nga gor mënut a passé loolu. man gor laa damay dem ba sa Sonko mbokk moo ñu boole deret moo ñu boole te dama am woon si ak jàppale amul kenn koo xamante ni defal nga ko si ñu ko coalition wala ñu nekkoon si parti man ci laa ñàkk sama lépp mi sama entreprise ci la sama doom feebar ci lañ ma tëj kaso boobu dossier Adji Sarr bi ña jëfoon naa jàppale de commission ad ba may génn rapport bi bi ñuy jàpp may mun a jëy di leen tëj police ma leen fay fekk. di yëkkat sama alal di la ko jox boobu sonk bi ngi këram. defal nga ko jàppale nga ko. te loolu ba ma koy def sonk tax ma di ko def. Mhm. ba may jàppale ñeneen waa Pastef yeneen yi Sonko tax ma di ko def parce que damaa defe ni man ak moom benn lan mais comme nekkul candidat ma nekkuma candidat candidat bu mu choisir consulte ma si Amadou Ba ñëw na seet ma am na projet pour Touba te Touba moo ma gënal Sénégal xam nga ba ñëpp xam loolu Touba moo ma gënal Sénégal. Mm. ndax bu dul Touba du ma nekk. ku la woo ci Touba nga wuyu ko. ku ma woo si Touba muy. Mm-hmm. ba pare dama lay saañ sa xorom doon la si bu dere def kaani ma defaale ko si ak foobar yëpp. Touba ma ñor loolu moo war bi Amadou Ba ñëwee indi projet Touba boo xam ne projet phare la muy Lac de Guiers boo xam ne sëñ Mountakha nee na lii la bëgg ko defal ndox mi Amadou Ba ne dinaa ko def mm. may taalibe sëñ Touba mm. dëkk Touba mm. awma loolu Touba ba boo ko jàpp du ma gor lii tax ma jàppale ko macha allah